xëy na day fekk seen diggante moom ak ndaw si continuer loolu itam bu amee parce que ndaw si na bu demee ne ko takk ma takk ma mu bañ ne ko samay mbokk bëgguñu la ak yu demee noonu béejoo bii am diggante ku jigéen kii jur xale bi ak ku góor kam ne moo jur xale bi day gën a yomb maanaam séparation bi day gën a nooyati encore te loolu lépp day teggu si waat ci kaw xale bi léegi nag am na yeneen yëf euh, da nga daan dégg ñuy wax ne il faut ñu ndëpp il faut ñu ndëpp il faut que ñu tuur koy fóotal fóonal euh, soow xeet bu mën a doon waaw xam nga booba booba ndëpp xam nga euh, presque lébu yi ñoo ci xaw a dese tuuti mais Kajoor Bawol Siin Saalum clan yi daan sëy ci seen biir daal frère ak sœur ku nekk am doom kii góor kii jigéen ñu jàllawle leen pour que ñoom ñaar ñu sëy souvent da daan indi consanguinité bi di leen indil nag ay genre épilepsie lay doon. Mhm. ay crise mhm. mais nag ci multiple façon ndax ñoo bokkoon maam bokk deret bokkoon ay. bokk feebar yu leen daan dal bu kii amee cinquante pour cent ci siti kii mi ngi ak cinquante pour cent ci siti mhm. suñu bokkee ñoom ñaar noonu dund am doom doom ji mën naam am vingt pour cent ci siti bu ko defee danaan laaj par contre bu ki amee cinquante pour cent ci siti kee am cinquante pour cent ci beneen feebar parce que bokkuñu woon tund wàllante wuñu woon bokkuñu woon époque épidémie bu leen xawoon a faagaagal changement de deret boobu ñuy am ñoom ñaar bu nu amee bu nu jaxasoo su suñu juree doom siti bële mën naa nekk vingt cinq pour cent kese kese kese wala mu resté ci cinquante kese su ko defee yaay ji état boobu lay nekk mhm. kon du am lu koy lu koy sonal il fallait que nga sëy ak ki nga xam il fallait que nga sëy ak ki nga bokkal beneen bi ci gën a dee sax mooy am naa doom ju jigéen duma ko jox ma sàmba wala ma ko jox ma demba mu koy jurali njaboot di ko jariñ mm. ca man mënu koo jariñoo mm. naa ko jox sama rakk ju jigéen sama rakk ju góor ji walla jigéen ji doomam ji su ko defee clan bi gën a yokk tool yi gën a yaatu ñu dund ci suñ biir loolu moo daan indi problème yi lébu yi lébu yi waaw xam nga lébu yi ñoom dañu nekkoon ndakaaru nekk ci seen ruq ak sax jalaaw euh, mbuur ainsi de suite euh, côte bi peut-être côte bi yëpp bi nit ñi fekk seegul bu baax a baax a baax dañ daan jëlante ci seen biir ndax ndombali tànk yi meen lay topp côté yaay yaay yaay yaay ci ngay faloo nekk dara daal ce qui doo xañ sa jarbaat ak pal fexe mu sëy ci say mbokk bokk ci di d'origine mën a nekk jaraaf mën a nekk ndey ji réew mën a nekk euh, euh, jàmboor mën a nekk daal façon ndomboy tànk yi nga xam ne mooy yi continuer la preuve côté yaay Ngoné Mbeng ñii di wax ne Serigne Dakar mën naa sant Diagne côté ñii ne mën naa sant Diop eh, ba gis nga ni muy indi ay problèmes yu sew mm-hmm. kon ñoom bi nu demee ba loolu sonaloon leen lool lool lool. mais est-ce que calcul boobu ko ndëppal di ko tëggal. di ko def yëf. Hmm. mais léegi gis nga kenn defatul yooyu dafa néew léegi. ndax dem nañ ba xam ne hôpital bi. Hmm. ak moytu consanguinité ndax libu bi day sëyeeg léegi joolaa dëkkandoo bi. nekk wolof bu kajoor bi ay wolof lañu. mais kii nekk euh, beneen xeet. Hmm. boo xam ne bi sant yi. gox yi ak séparation am chance seen deret du bokk dana tax mais man li ma jaaxal lu mu gën a sori rek waaw ci ngay gën a amee doom ju gën a correct ba yooyu yëpp wàññeeku bu baax a baax a baax ñaari façon crise yooyu waaw ñaari élément yi nga xam ne moom la ñu am ñoom ñooñu daf mel ne mooy li ma waxee rek gis nañ xamante si Adama ak Awa ñoom ñaar waaw te teewul ñaari cas yu ci am te teewul génn na ci ñaari cas yu ci am te pourtant génn si waaw mais moo tax nag kon réellement loolu la si côté boobu la moo tax doo doo moo tax doo dàq doo dàq inceste. inceste waaw doo ko dàq. doo dàq doo dàq. xam nga bu fekkee ne loolu la consanguinité la fait réel doo xam doom yi euh, ñaata yoon ngay dégg ñu naan boo juree doom na nga ko reconnaître. Hmm. Ah, bu dee ko siiwal. Hmm. na ko say mbokk xam naka naka na ko xam nga lu tax. Hmm. mais ñoom ñaar ban preuve nga am ci ne ñoo bokk. ku góor ki ak ku jigéen ki. dañoo bokk. waaw non bokkuñu. non mais yow yaa wax ne bokkuñu. waaw mais ca biir antérieurement. il vingt ans trente ans est-ce que bokku bokkuñu. kee kee chrétien la kee jullit la. bii kaa bi yow daal yow daal ca rek bokkuñu <laughs> ñaari kaay thème yi si am yëpp ñoom ñaar ñëpp boo seetloo bokkuñu. non dama ni dama xale bu góor bii jur xale bii. waaw feebar ak xale bu jigéen bii jur xale bii. feebar benn preuve ci ne bokkuñu dara. ah, ah waaw yow. kay. voilà. mais amoo ci preuve xam nga dama lay wax consanguinité. amoo ci preuve ça veut dire. dama ni. Hmm. bu fekkee ne consanguinité la ah entourage xale bu jigéen bii ku nekk mën naa jur xale bi nekk ku lompañ. mais xam nga moom seq nañu woon ak moom waxtaan. waaw ci te mooy élément bu mu jógee Thiès. Hmm. bañ teg bañ teg élément bi nii. Hmm. ba ay dëkkandoom seetaan ko ñëw ne ko kii dafa mel ni diw la. seen doom di Alicia. waaw xale yi ñu ñëwee man seet ñëw fekk ma fii dama ne la moo yëppoon dëkk. ñu ne ma xaar yàlla ma a ko ah yéen élément bi Thiès sa jóge de moom la de dina ma jaaxal dama leen mujje yóbbu yóbbu ba salle montage ñu taal kii bii ñu xool machine bi dem ba wan leen ko ñu xool rek ñu tëb foofu moom la moom la moom la ana yaayam ñu ne ma nga fa dañ ko waxoon may gëmuñu mhm. woo leen ma yaayam yaayam ñëw fii ñu seq ak moom waxtaan mais dégg nga ko nee na xam ba ma bañ ba sore sore nee na waa ji xam kiiwu ko mhm. xamante wuñ fii la nekk Dakar rek xamante mais moom nee na xaw ma ban dëkk la nekk am na mu gis ba mi yaa ngi fàtte ba naan est gumba la wax gumba ngeew wax wala feneen la wax waaw tu te ba mu naan mm-hmm. xaw ma xamu ko mm-hmm. kon xamul ay mbokkam fii lañ tasee tase la mm-hmm, donc dajale Dakar bii dañu xamante ah, moom la preuve chrétienne la moom l'autre am na ñu bokk ndey ak baay kii nekk chrétien kii nekk jullit nee na xamanteew ñu waaw bàyyi lu yow daal caba daal ah, wax nag ki déggu ma waaw léegi lu tax déggul nag waaw dégg naa li nga wax dégg ma nag moom moo wax ñu dégg waaw li mu wax bu dégg da ngay jàngat fii du li mu wax rek ngay dégg. ah yam ci li mu wax kese da ngay gëstu da ngay xóotal da ngay réfléchir parce que benn lay pàq la. non pàqute lay bi ay jur bi laa wax jur bi. non jur gi. mais ban preuve nga am ci ne moo ko jur. Ah. <laughs> ban preuve. da ngaa gis ku góor ki jël ADN am testé ko. léegi la moo tax daw waa yow ku góor ki. yow bëgg a jokkool pour mu wax la. non ah. ku góor ki la moo tax mu daw. non xam nga. ah déedéet attends la tax nangul dem wuy ji. xam nga. lu koy yomb na waaw léegi nag waxagun waxu yaa ko jurug juróo ko yaa ah, ko sànni dafa nank rek ko yëg na ko waaw yaa ko sànni ak sànni woo ko la ñuy wax waaw mën na ko bañ a jur mën na ko bañ jur ba pare sànni ko moom moo ko jur moom waaw ba waaw tey ndok alhamdulilah léegi moom xam nga loolu côté sànni bi kay moo ñu leerul dañuy bañ a bàkkaar mais jur bi moom wax dëgg nag yàlla xëñ na doole mi maytu ko nee na mu toppatoo wala moo xam mais en tout cas jur bi moom jur bi ak juru ko loolu moom féete na côté sànni bi wala sànniwu ko loolu mooy mooy problème bi te yaakaar naa bu doon moom sànniwu ko woon wala yabul nit ñi sànni bi ko kon dina wuy ji ñaata yoon ngay fekkee wala ku góor taxaw dawul mu fekkee ñaata ngay fekkee mm. wala nga dawul ku jigéen taxaw yor biiram ñu laaxaan si ñépp toog ku góor ki ne du man ñu wax wax daan ngeen génn mu ne waaw ñaataat nga ni deux ans trois ans. xale bi nga ni du mën. ñu ne ko jigéen gi waxal mu ne moom la. ñaata yoon ngay gis loolu. te des ñu ne ko jigéen ki bu ne la yow rek yow a te pourtant léegi loolu xanaa loolu bu yàgg la wala la. voilà xam nga bu des fois dañuy wax <laughs> te fekk du moom a de. moom daal bul. Euh, kooku mu ne du man te fekk moom la. comme mën na bañ a ah. nekk moom aussi. c'est pas possible voilà ndegam kii kii kii deful dara. dañuy ragal rek des fois dañuy def seen. ko def bu fekkee trait bi day dem ba de xale bi dem ba màgg ngay toog naan ay man su ma yëgoon nangu wala après ngay bàyyi ba mu màgg gis ne xale bi mi ngi si yoonu tekkeeg ah. a reconnaître waaw ñenn ñi sax yàlla metti a nuru di leen daf ci mbedd mi ne ne eh, yow demal nga jëli diw yàlla ko tuddee voilà <laughs> donc yooyu noonu bu dee tey euh, dem nga ba xam nga nangu ki nga jurul sax mooy bëgg a gën bañ ki nga jur. ñu ngi jégal ma ubbiwaale téléphone bi si 88 628 99 99. ñu egg si njokk ak moom allo allo allo ñuy lu baax a baax mbokk mi si ligne bi allo ok voilà yaa ngi doon ne. nangu ki nga jurul sax moo gën buñ la ko moomalee daal. moo gën nga bañ. bay bañaale far nga xam ne moom nga juróon ndax la ma la waxoon léegi day amaat kooka nga bañoon mën na xëy xëy taseeg sa jeneen doom feneen kii nekk jullit kii nekk katolik ñu ànd sëy dañuy jur lu mel nii ak yu demee noonu te duñu xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn day bekk bàyyi dañuy demee ba nekk mag ba màggat xëy dajem famille am wala yu demee noonu paa bi ne kii sama dooma kii itam sama doom la. ah da nga bëgg ñu ne waa mais yéen ñaar ah, jëkkër jabar ngeen ah dañoo te xamantewuñu. non bari na kaa yoo xam ne bari na kaa yoo xam ne yow yaa koy wax fii toujours xam nga des fois sa wax laay dellu si. <laughs> yow yaa naan. Mhm. yow yaa deret day xëcc. waaw cofeel ak mbëggeel. Mhm. boo ñëwee ci koñ. ñi nga fi gën a yaakaar ne ñoom nga bokkal jikko ñoom nga nuróol ñoo lay comprendre. dégg euh, ñooña. ngay fréquenté. Mhm. ñooñu ngay bëgganteel. Mhm. ñooñu ngay sëyal. du nag da ngay accuser kenn. Mhm. mais booy étudier. di analyser. ñuy moytu leen li. ak liy waral ñuy santaane li ci des. pour moytu ay conflit kese kese kese la. yàlla mi nu gën a xam nag moo ne defe leen nii bu ko defee ngeen nelaw du ngeen fi nekk di jéem a réinventer la roue da ngay fiyewu rek ci lim la wax. da ngay glisser tu te retrouves là où tu voulais aller sans te jëloo oto jëloo taxi ci avion defoo dara mais daal. allo. am na ku egg si ñu jokkoo allo. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar Mor Kébé. Mor Kébé naka nga. yàlla na cant yàgg naka waa Parcelles Assainies. waaye ñëpp ngi fi rek. bisimilah. waaw ma ñëw ci thème tey moom sama mbokk jigéen ñi laay wax tey. doom bu. man ak jigéen ñi laay wax tey. jigéen ñi ngay waxal. waaw ñu may wax tey waaw bisimilah jigéen ñaa ngi lay teewul am naa yaakaar. ndax yaakaar naa élément bi ñu bëri seetaan nañ ko. waaw. élément bi ñu lii ab jàngat la pour élément bi jàll nii rek jàngat la. Mm-hmm. Mm-hmm. amoon na jàngat la. waaw. jigéen ñi nañ bëgg seen bopp. nañ bëgg seen bopp. nañ fonk seen bopp. Mm-hmm. yàlla yàlla teral na leen de. ndeysaan. am wax ko mooy. waaw soo demee alxuraan yàlla tuddee na yàlla tuddee na leen awsaar. Mm. te tuddee wu góor ñi. léegi nag ñoom nañ jéem a màggal seen bopp mhm. nit ku ne jigéen ku ne na nga xam li nga doon mhm. xam fi nga bokk xam fi nga bàyyi ana lan moo la yóbbee ba nga waxe lii xam nga tax ma ko mooy waaw ah, ah gis nga kii nii gis nga góor gi moom di di métti wala dafa dem yoonam waaw coono bi mu ko mu ci béy yaay ji moom mooy sonn mhm. comprendre nga moo tax lii moo tax jigéen ñi war a xam seen bopp moo xam ne góor gu la ci wa góor gu la ci gëm loo xamante nekk sa du noona mën ngeen ànd muy ndax góor ñi moom léegi ñëpp a yem gaaw nañu fekk ci way lool. Hmm? waaw góor ñi. waaw. gaaw nañu fekk ci way lool. gaaw nañ ko. yow déggoo Mor de. mu ne. mu ne gaaw nañ ci dekk. ci. xale góor yi. waxatal ak moom waxatal baara. baara suñu baara. nga ne góor ñi gaaw nañu ci. xale góor yi. waaw. gaaw nañ ci tekki di way lool. waaw waaw. waaw waaw léegi nag moom yow su ko defee yow jigéen ñi comme ñoom gaaw nañ ci ñoom léegi mën nañu lu su paree li li ci wax duñ ko def. pourtant hmm? am na ñoo xam ne gaawuñu de jigéen ñee leen ci force ñeneen ñi. non hmm? am na ñoo xam ne ñoo ñu poussé ñu wala ñu ne seer la. Hmm. <laughs> boobu tey mu ne mib rek. ma ne <laughs> nga ni. góor a a jigéen su ñu bay bay dëkk euh, góor. Euh, moo war a jàppale jigéen. na jigéen di eh, xale bu góor moo sut jigéen. dafa naka su noonu yow góor fekkee na baax nga yaa ko war a mën a génne. dëgg la. waaye su jigéen bëgg dugg jigéen yow nga nga nga jàppale wu yow moo la tane. parce que mbir bu amee ñaar a ko seq. wallaay ñaar ko seq. la. moo tax jigéen ñi nañ xam fi ñu bokk xam liñ doon. Mhm. ba waa ne ñaari baat yi ñaa ko teree neex yaay bañ. yàq na dëkk bi. Hmm. waaye ak ak yaa ko yàggal yu yëpp. yaa ko yàggal baaxul. auditeur tam waaw loolu lépp moo fi def moo fi am léegi. dëgg la. xarit góor yi kenn tëkkatul. Hmm? waaw xam noo mel ñu bàyyi woon na gannaaw nañu def. léegi yow takk nga yow yow Mor Kébé dëgg moo tax moo tax ko duma damay teelu ah ma ne wàllu jabar waaw du ma ci gaaw du ma ci yàkkam damay teelu waa léegi lan moo tax da nga wóoluwul jigéen ñi wala lan moo tax wala xëy na euh, ci sa doole moo egseegul wala moo bareegul non non dafa yàlla def may ma soxna ma ne takk waaye damay dem nànk nànk mu xew mu xew da nga leen wóoluwul wala lan la kan ko laaj âge am ba xam wala da nga di gune kan ko laaj âge am am bëgg jëkkër ma ne hmm. ma naa wax ne wóolu naa leen ma naa wax ne wóolu ma leen daal yaa wax lii. waaye waaye waaye man waaye am naa mu euh, ñu dugg daal. yow ci say taa ba tey boo demee fekk fa tepp tepp de. wa wa lu am ne waaw de sooy de yàlla def ma dugg ci loo xamante ni ma macha allah lu mu doon lu ma gënal. ah da ngay kii rek da ngay wastu rek ah, sababu rek. ma ne ma ne. nga ni. weer woo ñu takk di eh, ñaar ci sëy. waaw. balaa weer weer def bu ko juróomi tas nañ. waaw bu mu bëggee dox bi. non des fois du seen coobare de. des fois leneen la ñan la coobare ñan la. ah. co coobare ci kan la jógee ah de mi ngi noonu nag des fois mën na bañ a jógee si ñoom ñaar ñëpp nag. waaw ah, mais caba boo dindee da fay teg dara nag. dégg nga mën na bañ a jógee si ñoom ñaar. waaw léegi ñan la ñan lan la nag léegi wax ko. wuy wuy ma woo ma. sëy sëy tey yàlla dugal ko ñi ñoo ñoom ñoo takk sëy ak ñi nga ña koy hmm. ñoo xam ne ñu ñu gis ñi ko mën a defar c'est ko ëmb dafa bari ñi ko mën a defar hmm. bari na ci de waaw benn affaire da ci a jaar rek du mën waaw xale ji daal ma ne ñaar ñu bu nañ góorgóorlu xam liñ doon waa léegi yow itam bàyyi di taafantoloo loolee bu dee am nga koo bëgganteel nga dem ca moo gën sa morom dem ca mu jeex <laughs> waa yàlla baax yàlla baax na ah yàlla yàlla bay sa tool nag jërëjëf <laughs> waa waaw baax na jërëjëf ñu yemale bu di waaw dégg nga jërëjëf Kébé rek la sant jërëjëf Mor Kébé mu bàyyi la nga jublu si ndekki gi ma ndekk nga ah? <laughs> man ma ndekki nga ma man turu yàlla ay dundee dara mi laa sant naa leen naa leen ndekki dégg nga déedéet bi jërëjëf garaaw lekk koo na res ak jàmm waa jërëjëf waa kay Kébé Ah. jërëjëf Mor Kébé jugaale ca Parcelles Assainies la ñu doon woowee. 88 99 99 114 yow la wax nga ne. Ibou fast food Ibou Gaye euh, fii si Derklé ak ñëpp ñi nga xam ñu ngi ñuy topp. Mhm. Ah, nga ni. yow kay laaj laaj nga ni. non da ngaa dindi da ngaa dindi ne divorce yi dafa bari. non moom moo ko wax. waaw mu wax cause bi. nga ne ko mën naa bañ a nekk loolu. waaw des fois ma bëggoon nga wax ci cose yi yow. waaw xam nga. cause yi quoi xam nga ñu ne ñiy sëy ndeysaan ñu ne ah yow xale bi kii ba mu sëy sa yàggul. mu nekk fi tase bi lay di foowee seen si réewantu ba tas seen sëy yaa ngi bàkkaar parce que xam moom moom ne nag moom nettaluwu la kon noppi rek maandu boobu ñu wax la léegi yi koy waral ah lii waral loolu hmm. lii waral sëy bi takk tas li ko mais war nga ci ñaar wala bari na moom ndax thème dèjà yu na ko voilà wax ci benn gis naa bu ñaata temps soog am doom mais gis nga bu mu amee doom rek sama jëkkër jékki-jékki bàyyi ma mu ne man bëgguma la woon dama doon arrangé rek mais xool loolu te pourtant njëkk njëkkee moo ko moo dox sëy bi bari na ci mu dem ba si biir soppi jikko parce que xamu bu nee na bëgg ko woon mhm. ñenn ñi ni ñu ne seen goro moo ne moo d'accord sëy bi ñii ne njëkk yi voilà ñii ne entourage bi mhm. ñii ne keneen koo xam dafa bëggoon toog sa wet ga yaakaar ne moom lañ takk takkuñu ko mu am nu mu def jóg ci jóg ci pexe yi bari na voilà macha allah léegi xam nga dafa wax léegi ne hmm. góor ñi dañu gaaw ci <laughs> noonu ah, ndax góor lanu ñu gënoon a xamee hmm. jigéen ñi léegi dañuy sol tubéy hmm. comme man ñoo waaw comme nga baal ma nag boolewuma la ci. waxuma kenn daal damay wax ñëpp. non bàyyi ma boole sama bopp parce que moom laa sol. damay bañ rek nga fem mu ma. ah non garaawul. voilà léegi jigéen ñi. caba. Hmm. tubay yi ñoo gën a indi problème mu débauche bi ngay gis nii. waaw parce que tubay. ah dégg nga mu ne góor ñi dañoo gaaw a summi tubay. waaw kon jigéen bu solee tubay da koy gaaw a summi. waaw gis nga woddu woddu donte sër kese kese la dafa am sentiment comportement yow yaa enveloppé sa bopp sër waaw gis nga la fait que nga jël sa loxo hmm. roof fii hmm. jël loxo bi roof fii jël sa takkoon takk ba mu dëgër xam nga fii rek nga takk hmm. <laughs> fii ci la si yëpp takkoo ko mais gis nga summi tuba yu pantalon moo gën a yomb dindi lafu sër je pas d'accord. waaw ba tey loolu. loolu moo tax xam bu njëkk ñii ba dañoo bëgg sër. Eh, eh, sër mu xam nga dafa rafet dafa yiw dafa lii baax na de. mais gis nga bu yeneen yi nga xam day far di am margay taale bi laay ñaan lu metti la boo gisee koo xam ne dañ ko ko def xam nga ko wala xamuloo ko dalay metti dafa mel da nga si gis sa bopp comme comme genre viol. Mm-hmm. tey jii booba doon sër mooy gën a. gën a gaaw topp ko ba sol bay loolu nag foofu nag nga déggule balaa nga koy dindi bay nit rek loolu nit ñi dafa gaaw moom ngalañ rek la de déedéet foofu la problème ba nekk gis nga gis nga boobu viol am woon bari nii nii nii dafa nànk rek ah, daal man dama cee bañ a loolu dama cee a dugg sax na seere parce que wóoru <laughs> balaa nga koy kii dindi balaa ñu koy dindi bay loolu daal nit ñi dinañ ñëw caba caba gi di gaaw na moom dëgg yàlla nañu wax dëgg rek te yàlla tax. dama lay wax oh balaa nit ñi nit ñi ñëw nga gaa nga nga dem feew. voilà est-ce oh. xam nga fiso. fiso fiso. baa yooyu waaw baa. waaw dañ koy booleek boo di kese. Hmm. yooyu jël ca yàlla. waaw léegi xam nga baa lan la baa. <laughs> waaw baa silib bu gudd rek la. Ah. waaw silib bu am ay tànk rek la. Ah. lu ndaw li daal moom. voilà silib la tubéy bu ndaw la. bu am ay tànk baa baa long. te baa yi. sax am mais yooyu sax dama bëgguma ci dugg daal euh, jamono mag la ñu kilifa di jéem a yaa may wax kilifa am na yoo xam ne da nga koy bëgg wax ngir jàngale mais dafa xaw a doy waar mais loolu mooy bëgg a tas réew mi mm-hmm. boo demee ba mën a comprendre ne sër sër mm. ñaari yooyu mm. lafam lafu séram yooyu mm. mënoo comprendre ne nit ki bu ko xase ba takkal am na kiir laay lu psychologique loo xam ne lii force su gaynde la par rapport a tubay ji nga xam ne dangaa def ñu rek xët ci fermeture dem sa yoon gis nga tubay loolu yow loolu moom naa génn foofu rek waaw génn fa parce que noonu mën ngaa comprendre voilà wóor ma maanaam doo gisee dara euh. phénomène il faut que nga tëkkale ko ak li fi nekkoon euh. pour xam. jamono nag moo tëral di nag nag. li xew léegi lépp moo ko indi ak béykat yi woon na sëñ Baara loolu tax nag. léegi nag waaw léegi nag léegi nag léegi léegi léegi bu lu tax lislaam tere li ayoba dang rëcc égal rafle lu tax lislaam tere dang gàtt ak yaraax lu tax. loolu nag moo lay andil ne kon bu dee muuru leen. sër da ngaa enveloppé wu. waaw est woon na jamono ji lu mu tëradee léegi ak viol yi lu mu baree yow tam. loolu la gis moo dam wax loolu la preuve bi nu tàmbalee sol tubéy lan sumi tubéy bi gën a yomb gën a gaaw. déggoo yow sumi tubéy bu seeree naka lay gaawee. bàyyil seere bi. lay lay li la. <laughs> du seere du affaire seere. dang la dang. du affaire u dang du affaire u yaraax boo solee li nga wurul sol. waaw lu mu nuru masque masque. masque boobu noonu. Hmm. muy tax kenn du Ebola. Hmm. gis nga ni mu amee sécurité. Hmm. est-ce am na sécurité dëggantaan waaw mais kenn du ko sol di dox ci mbedd mi. na ñoo kenn waaw dafa nànk rek. da nga koy doo ko sol kenn du ko sol. dox ci mbedd mi ñu ñu bàyyi ñu. yére bi itam sol yëpp après ñenn nag. yére bii itam yére bii nii. bi nga xam ne mooy bi xale yi xewal. te préparé wuñ leen. comme ñenn ñi. nga xam ne vraiment am nañ personnalité yar nañ leen. bu nu defoon sax yaramu neen kenn mënalu leen dara. ndax am nañ fulla yow côté sexe bi ngay wax comprendre naa la. mais la bi non non non du sexe bi de du sexe bi de xam nga. sexe bi hmm. dana tax prédateurs yi multiplier wu. da leen di ko waaw. Hmm. rabu àll bu duuf ne ci àll bi. ak ay nitam par rapport ak rabi àll yi yi yi jëfandikoo rabu àll. Hmm. dañ koy sonal dañ koy dàq. te pourtant moo gën a frais. pour gën a naqaree jàpp waaye ñoom moo leen gënal que bii ràgg feebar tuuti laqatu ba kii te boobu neexu leen kon sexe bi aussi non seulement day wootal. gaa ñi mm. te gaa ñi bari pexe. Mm. waaw mais nekkul gaa yëpp lay woo. bañu am na ñoo xam ne loolu yëngalul leen de. am na ci benn cause waroon sonn sexe sexe nga yaakaar yow waaw gars yi nax nga sa bopp xam nga nit ñi loolu leneen moo leen ñor ku nekk ak la la ñor adduna moom moom moo tëddee noonu moom mais nit yaakaar mën naa sexy ba bañ comme comme ça bu ma gisee bu dee fukki nit nax nga sa bopp suñ dee fukki nit bu <laughs> dee na juróom ñeenti yi sexy yëngalu leen waaw peut-être waaw mais kenn ki sexy yëngal waaw kenn kooku waaw nga xam ne boo ko rombee dox rek moom dalay topp hmm. jaral na ko dugg nga dugg ci bitik jënd crédit mu déglu sa numéro mu ñëw jënd bu dee borom barke hmm. ñi ñuy wax borom barke daal borom xaalis jaral na ko wëri kar la gaari ci say tànk fexe laa yóbbu jaral na ko nag ci cause de divorce yi nga doon wax boobu ci la jaral na ko bu dee am nga fayda sañ ngaa sexy rek tax nga sexy àdduna dana la dab ndax defoon nga ne yow am nga kiir laay ndax yow am nga personal te mën nga sax góor gu la bëgg a fontoo nga indil ko fi ne mais comme sexy nga te war a war a sexy tey nga gis nag ne ku la gën a foor day ñëw ni muy def mooy day dikk takk la jëndal la kër jëndal la oto ba am nu mu def ak yow. kon kooku daf ko xemmeem dafa am nu mu bëgg. mais kii kii kii xemmeem ku sexy la kii kii booy waxee ñuy wax sexy kay xemmeem a ci topp. ah déedéet mën na bañ nekk loolu ah. non nit nit ki mën a bañ a sexy nit ki gis ko rek xemmeem ko. ki bañ a sexy si waaw ba tey loolu am na. Mhm. mais que ba nit ka di ko topp mhm. xemmeem baa tax. Mhm. ah mais ki la bëgg ki ñëw bëgg a aborder bëgg a caaxaan bëgg a fo am na moom mutardam bu yéeg bu mu bëgg a wàccee. <laughs> yow mutard mu waxee ay ba. non mais da da lay tissuol yi am na ñoo xam ne. <laughs> si àdduna 88 628 99 99 114 bi ñu dee suwaatee suñu itam gis nga xale bu jigéen est-ce que en général dafa mel ni ñoom dañuy am bopp ñu baal ma dafa mel ni yàlla dala may daal ndax koo xam ne yow sànni woon nga ko ba yaakaar ne yow pare nga déplacé wu nga si moom jeex na. jox nga ko nit nit dem na ba fexe ba sànni ji ko nga toog à ta grande surprise toog seetaan télé gisaat jëmm jooju nga sànni ba ñu sànni ko te yow xamoon sax ne sànni nañ ko mu xale bi ëlb ya nga yaakaar génn na sa kër jox nga ko keneen mu toog si geneen kër xale bi tey ëlbatikuwaat nekkaat tey si sa ay yoxo gisoo gisoo gisoo na ngi ci yàlla moom mooy dogal rek mm. ndax nit normal na nekk lu mel ne daal euh, bébé ba fi réeroon te feeñaat. Mohamed Sène Mohamed. Mm, junior gis nga ko. ñu koy nuyu baax di euh, moom du ci ñetti fan ñeenti fan. moom ci ay weer la. Ah, six mois te teewul. feeñaat na ba toog ci. sant rek yaayam ak baayam. waaye itam. dafa dellu suul ba faw ah, gone jaare na fa mujj ci mar d'Italie yi ci yi mm-hmm. kenn mënul nettali mm-hmm. donc loolu itam yàlla daf wane mbiram ci lu tuuti loo xeeb te mu xeeblu. nit ci say bët. mën naa am ni ko yàlla fonke yow fonke wu la ko yow donte yow sax patron nga milliardaire nga borom barke nga wala ay demee noonu mais yow li nga xeeb yow ca yàlla mën naa am moom yàlla mii yi nga xam ne ngëneelam moo gën ci ñun kii ngay xeeb sa chauffeur sa gardien sa employé wala ku fekk ko xam ne boo koy sarax sax. da ngay bañ loxoom lal la da ngay def nii ba mu tàllal nga dal ñaar fukki yi ci loxoom mën naam kooku yow moo la gën ca yàlla moo tax nag yàlla moom ki mu fonk ni mu fonke doomu aadama mm-hmm. waxul woon damaa fonk doomu aadama jalla fañ wala ji lompañ wala ji gumba wala kii normalul wala ka normal déedéet dafa fonk doomu aadama mm-hmm. te doomu aadama kii nii ni mu nekkee jigéen ñi ngi koy gis ni mm-hmm. mën na yàlla dimbali ko mu dem ba nekk mag on sait jamais waaye am doom dëgg la joo ne ji lii ko dal moom du du dal doomam doomam jooja xëy di jaamu yàlla ba nekk wàlliwu yàlla wuy défendre ba ko kenn défendre tul on sait jamais moo tax bul xeeb kenn kenn jot a xeeb koo cof mu rot waaye koo xeeb mu yeb la dëgg la ma ne la muus doo seetloo muus da ngay nit ñu jégg am na ñoo xam ne dañuy am seen kër muus xam naa mu lakkale mu sonle lool wundu wi quoi wala lu ñu teg rek mu daldi ko lekk. Mhm. janaab ñu dem jëli ko mhm. dem dem sànni ko. Mhm. yaakaar ne pare nañ ci moom. day ñëwaat mais bu ñoo xam yoon wi di kaat. day ñëwaat euh, waxatuma la na doomu aadama. voilà bi nga xam ne yàlla neen lépp lu mu bind loolee mu doomu aadama moom si gën a. voilà te yooyu yàlla da ci faral di wane ay bagaasam. gis nga kii jaaroom réeroon ca géej ga. mu dem marché dem doon jëndi jën. ñëw dal ci aw jën yóbbu ko këram waas ko butti ko. jaaro bi ne keleng ci super bi mu xool muy jaaroom waaw yàlla def na yu gën a kawe yooyu ci moom damay dégg ñu naan damay dégg ñu yàlla mën naa rey gilléem mee du ko jaaxaanal ak yàlla muntu mën na lu ne waaye muntu dugal gilléem ci bën bënu puso ma ni leen guddi gu jot yàlla def ko da ko dul fekkee mhm. ah dafa tàggu kenn guddi gu jot da koy def sax lépp def kenn du amul lu mu mënul ci àdduna kon kaawteef yooyu mhm. du dara ci moom xale bi ñu sànni ko xaj yi di ko romb ñëpp di ko romb. faanu oh. di ko romb ba yàlla indi nit ki ko war a siiwal. Mm-hmm. mu woy sapeur ñu jël ko. delloo siwaat ko ci yaayam. foofu yaay ji da ciy jëlaat beneen matuwaay bu bees mooy naa ko fonk na. te gis nga ko yóbbee l'hôpital. Mm-hmm. ba ñu ko xoolee. dañu gis ne amul benn feebar nekkul ci moom kon du du jaadu ñu wàccaat ko ci l'hôpital bi ñeneen ñi feebar di ko wàllu ay feebar mhm. loolu moo tax ñu bëggoon moom mu génnaat ci l'hôpital ba waaye gis nga heureusement yoor yoo ñu def ko yoor yoo mu feeñ mhm. yaayam ñëw affiché wu ne man maa ko jur mhm. waa police woo ko ñu lëkkaloo ak l'hôpital ba ñu fexe ba jébbalaat ko ki nga xam ne moo di doomam sinon ne la ñu ko demoon seeti gis ko ku mu uuf doomam am si ak papam moom tam waaye itam doole yemul xam nga dama lay wax toujours naan la euh, mbedd mi nu xàllal mm. buñ ci jaaroon mën nañoo bañ a sax xippi di xool te dañuy egg mooy lii tey ku jàngoon alxuraan te jëfe ko doo ko sànni dafa am lu ñuy àndal kooka itam doo ko bañ mm. Moussa alayhi salaatu wasalaam bi Firxaw na yége ne am na góor gi ko war a remplacer juddu na jigéen ñépp lañu wër mm. ku jur doom ju góor ñu rey yaayam bi mu xalaatee ne danañ ko mës a jël mm. def koo defaral benn pañe dàmba dex gi mu xuus fan la mujj kër firaw na la mujj jabar ji ne ko nan amuñu bébé nan ko téye mu yaroo ca biir kër ga xam seeni plan xam seeni stratégie ba gis nga ni nu mujje kon yàlla moom dafa noppi te lépp mu ngi ci biir alxuraan bàyyiwul dara kon boo ko pratiquer xam nga catalogue catalogue da nga am sa sa benn defarukaayu dara wala sa portable da ngay jël catalogue bi di ko allo. salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Ba ñu ngi leen ziar. ñu ngi lay delloo ziar kooku. waaw ñu ngi lay ziar bu wér. waaw di rafetlu lu yi bu baax a baax rek. jërëjëf jërëjëf. Euh, di ñaan tamit euh, askan wi. Mhm. wala sponsor yi. Mhm. liggéey bu rafet bi ngeen def ci kii Sénégal ñu jàppale parce que yéen a ngi jàppale askan wi bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf mbokk